asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu nuyu siyaar ñoo ngi leen di balaax di leen balaax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal waaw comme ni ko waxee rek euh, da ngay laaj euh, lappe mooy fan lappe de dëkk bu am la boo xam ne mi ngi ci bawal ci nekk ci Euh, arrondissement Ndindi ca nañ ko doon waxe waaye léegi commune la léegi commune Touba lappe lañ koy wax waaye département Diourbel ba pare nekk région Diourbel Lappé nag euh, yaakaar naa fekkee nga bi ñuy euh, bi ñuy teg xeer wi suñ maam ju ñu wax Maxtar Omane moo ko sant moo ko sanc Maxtar Omane nag ku ñu wax sëñ Moustapha Sarif Moustapha di benn sarif bu jóge woon gànnaar ñëw fii waaye am na fu mu njëkk ñaar ba mu laataa fu mu njëkk jaar bi mu laataa ñëw ndogal euh, ñu may ko fa soxna su tudd Omaana Jang Omaana Jang moom moo jur Maxtar ñu koy dàkkantal ci yaayam Maxtar Omaana Jeng Touré moo ñëwoon sanc la lappe gi bi mu sancee lappetam sencaat na caq mi waaye ci biir loolu tam am na fukki ak dëkk ak juróom-ñett yoo xam ne euh, ci cosaan lappe lañ bokk. ah li leen xamal li dajale ci dëkk bi di lappe di dëkk bu yàgg di dëkkub diine ndax alxuraan moo ko sanc ndax li tax ma ne alxuraan moo ko sanc Moxtaar am maanaam mi nga xaay mooy mboole maam yi ku sant Ture fii li ko andi ci réew mi bi mu jógee gànnaar dafa ñëw jeere dëkk bu ñuy wax jeere fekk sëñ jeere dem tool mu bind alluway gone bañ laataay ñëw bi mu ñëwee bi sëñ jeere ñëwee ñu ne ko ah, sëñ bi de am nga gan mu xol alluway ne ku ko bind lii ñu ne ko ah, sa ganu naar gi de moo ko bind mu kontaan ca lool ñu waxtaan fekk am na doom ju ñuy wax Umaane Jeng doon ab handicap ndax xam nga ne ab handicap moom maanaam doxandéem ko koy may daanaka sa la nga koy may doonu loo xam ne nii lu dara jaw la bi mu ko ko mayee mu am fa ay tuuti weer daa de wan na aw lor ba ko ba ko wan ne aw lor mu daa di ne day dem dellu Murtani maa ne di jooy naa ko ah baay kii nga ma may de doom lor wii ma ànd ak moom su juddoo xees ñu dima ko reetaane mu ne ko bu juddoo yàlla na leen nuru loolu moo waral loola nag kon ay naari xees pecc la ñuy doon loola mooy cosaan bi lappe nag niñ ko mën a waxee mooy suñ maam ba mu koy sanc tam da ko doon sanc pour jaamu yàlla taxoon ak liggéey ba mag ñi fi nekk léegi la jamono soppiku waaye bi mu soppikoo gut kër goo dem li xaali may jaxate kala doon wax rek ja ju ba jàng julli bay rek lañ xaman ànd ak loolu lépp nag ñu ñu nekk fek seen mbokk yoo xam ne nii mosuñoo tàggaloo ba fii koy waxee nii mën naa ci lim ay sant boo nee Touré fii dangay wax Njaay te da ngay wax Seen te da wax Aan yaakaar naa sant yooyu ñoo fi gën a lëng am na Seck am na sal maanaam bu ma limee du ma juum waaye du ma matal waaye ñun ñëpp xaman nañ xamante nañ ay bokk la yoo ay lañ yoo xam ne yu yàgg ànd lañ te ànd bi dafa mas a rafet ba tey jii te de ñu ñaan yàlla suñ suñu borom subhaanahu wa mu gën di rafet. mooy Moustapha moo jur Mokhtar Mané Mokhtar Mané ak mbooleem kuy dëkk ci dëkk bii ba ci juróom-ñaari penc yi muy Touré. mat dina turam mbond foo mën a kosaanoo moom mooy sa maam dëkk bi doon na dëkk bu yàgg ndax bi ma ko mujjee laaj maam ma ko ji sayde dama ne mi ngi juróom benn téeméeri at ak juróom ñaar fukk te moom ba ma ko waxee ak léegi war naa mat fanweeri at kon dëkk bi am na juróom ñaar téeméeri at ci lu wér barab bii nu di waxee yeewoon sëñ Tuubaa ñëw na fi maanaam fi ñu ne fii la ñëwoon ak fii ma toog boo ko nattee ci fukki mètre rek lay war a toll soxna Fat Dia mi nga xam ne ni mooy taabu sëñ Tuubaa waaye juróom juróomi nga ci armeel yii képp ku la ne nag soxna Fat ja nekk na fenn fuur armeel yii waxul lu nekk ndax soxna Fat Dia moom moo joxe kaamil bi nga xaay dañ ko koy jàngal mi ngi ci loxob sëñ Cheikh mii sëñ Abdou Latif lañ ko jox sama baay lañ ko joxoon mu jox ko sëñ Abdou Latif soxna Fat ja moo joxe kamil booba armée yi la nekk la ci teguwaat sëñ Fallu fonk na dëkk bi lool ndax kër kër na gi bi mag ñi demee di ko ñaani pontaret bi ba mu leen ñaanale dalee na fu ngeen bëgg mu ne na ngeen ko fa def bi mu ñëwee bàyyi ma xuje say wax ne bu buñ ko tegee ci dëkk bi xumbaay bi day yàq njàngum gone yi kon nañ dem ba ca kër na ñu def ko fa ñu def fa ñaan googee sëñ lii ba mu ko waxee day du ngi duuti leen jëgg am fu ñu di jaay gerte duuti leen jëgg am sëñ Touba loolu la wax kon loola ba sëñ Sidi Mokhtar ñëwee doon sëñ Touba ku ne xam ne loola ñëw na ba fii nii noo koy waxee nii itam kër ngaa nag ñu defoon ñaan nga lépp a nga fa fala mairie ba nekk fala hôpital ba nekk fala case de case de santé sur li ñuy tuddee gone yi nan laati case de fouti ba fala nekk fala lépp ne kon loola ñëw na la ca teguwaat yoonu Kër ngaa Ngaana yi nga xam ne nii moo dalee fa fa ñaan nga nekk ba cël maxa lépp tëli la te la ca dana jàll la ca des dana jàll kon loola mooy cosaanu dëkk bii. mag ñi nag li ñu xamoon xëy na am na ñen ñun leneen lu ñu xam loo xam ne xëy na bokkut ak loola waaye ñoom lañ xaman jàpp naa ne eh, lii nu xam ni léegi moo gën a neex waaye ñoom lañ xaman moo gën a baax ndax ni ma ko waxoon sànq rek. liggéey jaamu yàlla dund sunu ñàkk jàng alxuraan jàngale ko moo doon sunu liggéey xamuñu woon lenn loo xam ne subaat la mooy loo xam ne day nur lu nër wala lu luñ sipp wala leen waaye lu dagan ak lu lew rek ki lañ doon dunde loolu daal mooy cosaan lappe sëñ bi fekkee xëy na am na beneen question boo xam ne bëgg nga koo laaj itam xëy na mën nañoo encouragé bañ mën cee dugg waaye ñu yemandi foofu incha allah. la leneen la ci teguwaat mooy dëkk bii. dëkku alxuraan la boo xaay xamuñu lu may bay dunde seenu ñaq mag ñi fi nekk itam nga xam ne ni mooy ñi sant njaay seen aan ñëpp benn bopp lañu woon kenn ku ci ne am nga turandoo sa moroom kon benn bopp lañ te nañ ànde woon noone ba tey ji nii la ñu ànde jigéen ñi fi nekk ak ñi fi sant ak ñi fi kenn ñëpp benn bopp lañ amul ñaar amul ñett lépp ñoo ko bokk loolu lañ leen bëgg a xamal leneen li ci desuwaat bu noppee dana dem ca penc mu njëkk ma lii nag moom mooy penc mu mujj mi yàgg na nag waaye am na mayen penc moo xay moo waroon mu njëkk ma bu noppee fii danañ fa dem leeral lépp nga xay ne nii képp koo xay daal gis nga toogaay bii ak mbooloo mii dootoo umpale dëkk bii loolu daal lan leen bëgg a xamal ci liñ ci xam dëkk bi tamit mu nekk dëkk boo xamante ne dëkku cosaan la dëkk bu yàgg la boo xamante ni bii wax nañ am na ñoo xam ne wax nañ ne am na juróomi téeméeri at am na ñoo xam ne nañ am na ñeenti téeméeri at euh, li ci mën a am solo daal li ci gën a am solo daal mooy li ko sos mooy jàng alxuraan moom lañ ko sance ak jàngale euh, ba loolu nag moo fi moo fi moo moo fi nekk incha allah waaw ba yàlla suñu borom dogal na tamit man mii di wax ak yéen ma dem ba ture maa yore daale alxuraan ji fii daal di jàngale alxuraan comme nit nga xam na la ko maam yi daan defee kon nag bis wa tabaarakallaahu ñu ngi sant tamit mboolem ñi nga xamante ne bii maanaam soqoo nañ ci ci ñu sant jaxate ak Touré ak Silla ak Jaane ak Mbay mboolem sant baakol baakol yëpp bis ni ki tey maanaam teew nañ fi kon maanam ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm mm, di xam leen daal dëkk bi moom mm, macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sallallahu taala alayhi wa sallam mbokki lappe ñoo ngi nuyoo di nuyu waa lappe yëpp di sant yàlla ci bi ñu yàlla xéewalee ba ñu teewewaat ndaje mi eh, nga xam ne ren jii moo ci nekk moo nekk dix-huitième Ah, bañ ko dooree ba léegi ren ji tamit yàlla def ñi nga xam ne ñooy sëti Maam Maxtaar Omaane ñëw fekk si ñu ci ah, lépp itam ci kaw kilifteef ci ndigalul Baye Moustapha Sy Touré mi nga xam ne moom mooy xalifa waa Lappé nga xam ne mooy kilifa ak Lappé ci ndigalam ak ci kàddoom la ñuy jëfe waaw mu mel ni ndaje mi niñ ko yàggee defe moo waral ba tey ñu réalisé lii nga xam ne jot nañ ko fi def muy mbaar moomu nga xam ne des na ko gis ci pénc mi muy mbooloo mi nga xam ne moo ci sosoo ba ànd defar la ñëw muy ay gone ñu bokk ci muy armeel yi ñu miire muy xamante ci bokk gi muy lu am solo mu mel ni nag buñ nee ndaje dafa war a am objectif ak lu ko tax a jóg kon mu mel ni saa bu ñu fi nekkee rek année bu nekk am na loo xam ne ñu ngi koy naal di ca fas dox jëm ci am na ay naal yoo xam ne naaloon nañ ko suñu borom dimbali nañu ba sottal nañ ko yeneen naal yi nga xam ne ñu ngi ci jëmaat te fas koo def bokk na ci li ñu waxoon taxawu daara ji bokk na ci itam comme niñ ko waxee nii fexe ba nga xam ne dinañ am ay daluwaay waaye bokk na ci itam eh, eh, sos comité scientifique comité scientifique boo xam ne ay borom xam-xam ñoo koy séq bu ko defee itam borom xam-xam yooyu doonut rek xam-xam sax ci wàllu diine ji rek waaye xam-xam tamit ci wàllum développement ndax tey jii bu ñuy lim waa Lappé muy ci xam-xam bu mën a doon ci wàllu àdduna askan wi amee na ko léegi nag nan lañ koy tënke ba jariñoo ko loolu mooy suñ yitte te e, gannaaw bisub tey bii rek fas yéene nañoo dox jëm ci e, li ñuy doxe jëm ci yit bokk na ci boroom xam-xam yooyu ñu war a taxaw ci wàllum naka la ñuy développé ci wàllum càmm gi nan la ñuy développé tamit ci wàllum mbay mi waaye li tam yi nga xam ne mooy xam-xam yi nga xam ne wàllum diine la tamit nan lañ koy nose ba nga xamante ne ni lépp luñ ci soxla woo ñu ko jëggaani waaye des na ko mën a jële fii ndax yàlla def na ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci askan wi lépp luñ soxla woo mi ngi ci kon mu des rek li nga xam ne mooy nose gi loolu lañ fas yéenee dox jëm ci loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañ ko leeral bëggoon nañ ko siiwal tamit ngir ñëpp jot ah, xanaa bu weesoo loolu mooy daal di encouragé ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoo commencé jël relève bi eh, di tax ñuy encouragé ndaw yooyu te di leen sant it xam nañ ne ren ji mag ñi nga xam ne ñoo doon yor kii bi di premier audition ba jusqu'à 17 18 audition bi ren ji ndaw ñi ñoo yor lépp lépp li nga xam ne ñoo ko ci war a def dañ koo delloo ndaw yi te mel na ni ba fii may wax yow ni mbir mi di déroulé mel na ni lépp lépp mi ngi jaar yoon liñ doon xaar ci ñoom daal mel na ni lépp lépp ñu ngi koy gis ba ci eh, waajtaay wi ak itam bi ñu xëyee ba niñ ñëwee fii ba fii nu toll loolu nag kon dañ ci sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatulah عجائب في البر والبر لمدى بكونك مخدومي ولومي وإنفالي وسري زكية لمن بك لي خادم علي بما بالله أني موت وسفايا

وللقادة أمدادي الخلود لك المعجزات القرب يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمي لقد كنت سفارا ثبورا ونازلا عليك سلام الله يا ماهي الجليل لك المعجزات الخارقات التي بها أتى الحمد من خير بلا جملة الرسل لك ذنب قدارا بذاق بداوة كما التقى بدر زام لمن أنزل الآية التي قدني بها كتابا عزيزا بين يناقض بالفصل لساني والأوثان وعبد الملك